ñun ñëpp ay mbokki taalibe lañu ta mbokki taalibe nag bu ñëwee seet si moroomu taalibeem daam lu ci Sëñ Tuubaa waxoon ca ba ko mag ñi fekkee sarsaara mu ni mbooleem ñi ma fekk si fii yàlla jéggal na leen mu ina li si na ilaa sarsaara xat xasadu siyaari ci faroxu daa leen aw saara sëñ blaat nee na moo ko wax Cheikh Blaye Dieye Blaye Dieye wax ma ko booba ak léegi mbir ma daa tàmbalee sarsaara waaye nee na loola du jeex ba tey jii nee na bu ab murit jógee ci këram seeti moromu murit moo xam kafe lañ fa naan wala ndox sax bisub keroog ñoom ñaar dañoo tàggoo ak ci bàkkaar kon buñ ñëwee seet si la foofu ci tuubaa dal ak yow nga jël baatu wolof bu yàgg boobu ñii euh, man gan ca la ko neex déedéet man gan ca la ko neex te mu dagan sinon boo ko deful bu dee lu xaraam nga bàyyi ko gan gi def ko yaa ngi moom ñëpp la yàlla duma kon yow mi nekk Touba da nga war a nag jéemal def loo man nag yow nanga def loo man ba def loo mënul bu mu la dugal ci nga dugg ci yoo xam ni bu màggal gi jàllee da ngay am ay masaakil yoo xam ni euh, euh, da ngay rëccu loolu te ki ngay diir mbagg na fekk ngeen tolloo war wërsëg wi leen suñu euh, suñu borom jox am na yu bari yoo xam ne ma nga fay xew ci Touba mooy nga ñëw dalal gan ñoo xam ni ay xale yu góor ak xale yu jigéen ki nga xam kenn nga ci xam mun la ñii suñu waa koñ lañu nga bàyyi leen jox leen saal ba ñu nekk fa ñetti fan déet war ngaa lijjanti yow sa bopp yow mi nekk Touba gan ñii seet si la benn xale bu góor bii nekk sa mbokk jóge Dakar wala Kaolack wala fenn juróom benn xale yu góor yi mu àndal ak juróom benn xale yu jigéen yi war ngaa xool ba bis bu tëdd jotee nga séparé leen si kam kàttan yooyu nañ koy bàyyi xel bu baax buy jëfandikoo loo xam ne moom gan gi da koo indaale nga xam ni lii dañ koo tere fii ci Touba bu la ci kersa yóbbu ndax nun gis nañ loolu nga bàyyi gan gi muy jëfandikoo loo xam ni lii euh, dafa xaram dañ ko tere ci Touba yooyu yëpp dalay yàqal ak màggal même boo amee ak màggalit am nga bàkkaar boo xam ni bàkkaaru ki nga autorisé tey jii mu ñu def fii loo xam ni loolu man na nga ko tere parce que yaa moom kër gi te Touba benn kër la boo xam ni genn moomeel la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 bisub sëriñ bu mag bi gaa yi jub si na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegg si na fukki fan ak juróom ñett ci biir safar mooy bés bu mag boobee waral ñéppi safar